asalaamaaleykum mbokku internet seneweb tv seneweb point comme ñi ngi fii ci Louga nag ñëw seet ki nga xam ne mooy le meilleur gardien euh, de but euh, CHAN bi amoon euh, ci Algérie donc ñu ñëw fii Louga seet si ko ngir waxtaan ak moom Pape Mamadou Sy ñi ngi lay nuyu. fay. voilà fi ñu la fekk nii tey fan la. <laughs> fekk di mooy sama kër nga ma fekk. Mhm. man fii laa génnee quoi. Euh, terrain bi lan lay fàttali bi mu fi ñëwaatee tey di jouer tey de may fàtte sama sama mhm. parce que man fii daan fooyee quoi daan footballé fii jaare comme école football quoi. Mhm. ça m'a fait plaisir na ma fi ñëw di fi joué waat. voilà lan nga organisé woon tey fii. non dara ma ñëwoon rek comme d'habitude comme gars yi ni nga daan defee chaque dimanche ñuy football suñu biir am ataaya gi ak café gi ko tuddee. Mhm. te dama fi daan joué tey mu fekk ma fi. ma ñëw partagé ko ak euh, nga am meilleur gardien de but euh, lan la la def. ah mais <laughs> gardien bi si chan bi lu ma def waaw kontaante rek waaw lu ma doon rêve la nag surtout avant may dem foofu quoi parce que man loolu laa yóbbu ale woon quoi. objectif la woon quoi. bu ma ko atteindre nag laa xam ne alhamdulilah rabbi alamin mais nag ça m'a de la joie quoi. Mhm. kontaan naa si trop nag. Mhm. parce que daa am feneen fu may yóbbu quoi. fan la la yóbbu feneen. non foofu sori. sori sax. <laughs> comme lan ak lan may ñu ci tuuti rek ñu xam. parce que kuy bépp jour yaay opté di jouer yenn compétition yi. Mhm. pour ñëpp gis la at di sa dëkk tamit. loolu da ci am solo quoi. Mhm. jour boo gis ku nekk bëgg na di défendre couleur dëkkam. Mhm. man bokkoon naa ci ñu doon dem di défendre sama couleur dëkk ñu ràññee ma si torop nag. ma mhm. ci am contact bu baax. Euh, benn joueur algérien tiré penalty nga arrêté ko ñu waxaat ko encore mu tiire waat ko loolu tamit lan la la def. non metti woon na ma mais li ma def noonu. bokkul si réglement bi parce que moom bi mu ñëwee avant may ñëw dafa def arrêt ma génn. Mhm. mu dóor ma jàpp ko ñu arrêté ko mais c'est normal. Mhm. parce que da nga ko war a dóoraat mais neexuma woon na quand même. bi ñëpp di coow bi tax euh, euh, euh, ñu qualifié tiro bi bi Marius nga nga jàpp ko donc yow tamit instant boobu lan nga yëg moment boobu noonu. non moment boobu <laughs> bu ma toogee di di xalaataat. Sénégal lu toll ay million millions habitants yëpp surtout loolu. Mhm. xalaat ñëpp di ma yaakaar koi mhm. pour ma arrêter plante yi ma boole si yàlla dimbali si ma am si con concentration bu bari sax. Mhm. te moom et moom doon naa ko seetaan tamit. doon na ko yàgg a topp ko topp quoi di ko seetaan quoi parce que moom ya mas yi daan na am ay yi di ko dóor. te noonu la ko daan dóoree noonu la ko ma def na moom rek. nga waajal ko ma instant boobu ñu gis la nga jàpp ko rek ju yuuxu jubile. waaw parce que boobu donc <laughs> boobu daf daf ma yóbbu sori. Mhm. xam ni dama ko soxla woon daal. dama ko mhm. soxla woon def presque cinq plante yi mënuma see jàpp dara. Mhm. loolu kii la pour moi pour man déception la pour man quoi. te ñëpp di wax ni que euh, Pape Mamadou Sy fooram mooy dafay arrêté ay bal lu ci mel ni turo bi mën na cee jàpp ñaar ba ñett. waaw surtout loolu quoi. Mhm. te ñu gis ni turo bi bi xam jàpp moo bi ma jotoon a jàpp dañ ko arrêté te dafa dugg loolu tamit kii woon na ma pression quoi parce mën naa mën naa loolu ko mën naa ko tamit loolu. <laughs> Euh, bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw tamit euh, également ñu ngi dégg ñuy annoncé que da nga war a signé signature boobu nan la demee jot ngaa signé am nga ci éco waxtaan ngeen ci foofu wala fu mu toll. ah non man signature dama koy dégg rek xam nga ñun footballeur moom amoo lu dul football quoi da ngay yow da ngay ne sa football ñuy res ay wàllum signature. ñoom res loolu quoi seen liggéey la mhm. mais moom ba ni may waxee yow man su ñëwuma fenn quoi. kenn waxu la ci lu jëm ci wàllum dirigeant wala président sa équipe. non kenn waxuma ci mhm. ay rumeurs yi génn nii la mhm. club kon ngay rêvé dem signé fa dem joué fa. naat génn fii rek dem su ma demee Europe club moo bëgg naa fa dem incha allah. Euh, gëm nga ni euh, tu capable. Euh, dem évoluer ci club européen yi. tu as la capacité. incha allah loolu incha allah. Mhm. te may mhm. Mhm. man mooy sa club de rêve nag. sama club de rêve. waaw. <laughs> Chelsea mooy sama club de rêve. Chelsea kon kon yaa ngi rêvé dem jouer foofu également. incha allah. voilà euh, nan ngeen doon dundee foofu euh, CHAN bi compétition bi en groupe et tout maa ngi dégg ñu naan am na chambre bu ñu woowee naan sax foofu <laughs> ban chambre la. ah non waxal yow yaa ma ko gën a xam. <laughs> chambre boobu nan la tudd. waaw léegi chambre boobu nan ngeen daan dundee yéen seen biir entre vous. non xaw a jur de xaw a jur ay nit centre lañ quoi ñenn quoi. Mhm. faral am habitude dañuy jël benn chambre yëkkatil bi tuuti jël benn chambre. Mhm. di fa daje di fa waxtaanee di fa partager noonu la demee woon quoi fële tamit mhm. amoon na benn chambre waxaan te man la dafa def mu tombé sama chambre la fa sama yenn booy ñëw ñii kii di waxtaan di partager ak tamit tout quoi yu bari quoi. ñu naan ay ataaya di. jappise ban ban jour moo ci gënoon turbulent foofu. gaz bu ndaw. <laughs> voilà Kanté. waaw Kanté moo ci gënoon kii. moo si gën a sonle. gën cee bëri bruit gën cee bëri bruit mën a tooñ. <laughs> voilà. mais quand même euh, essayé ngeen gérer entre yéen seen biir amoo leen woon benn jafe-jafe. amoo woon benn jafe parce que foofu ñun ñëpp dañoo doonoon benn quoi. Mhm. solidaire quoi. Mhm. waaw loolu daal moo ñu loolu moo ñu xaw a dimbali ko moo ñu mhm. dimbali si lu bari quoi. ngeen xamoon ne da ngeen fixé woon objectif. xam lu leen fa indi xam naa ne gars yi amuñu woon yaakaar ni sax pool dinañ fa génn mais ñun loolu lu ñu woon la nag. Mhm. mais manifesté wuñ ko woon quoi pour mhm. di ko wane nii wala mais bu ñu wéetee ñun ñu ngi waxtaan suñu biir. Mhm. fixé woon nañ suñu objectif. suñ suñu objectif. génnoon quart de finale la. pare si quart de dañuy directement finale incha allah. Euh, bu ñu génnee ci loolu dañuy ñëw un ci sa carrière mën nga ñu fàttale tuuti rek euh, fan nga jaar euh, ba ngay agsi fi nga xam ne moo di génération papi kii wàll ñu micro bi tuuti. man fii laa jaar fii si terrain bi. Mhm. benn école football bu ñuy wax Pape Pape Sène Apsis. Mhm. Mhm. man foo kooku moo ma formé. après si laa génne dem étoile Lusitana. waaw. nga def foofu yàgg nga fa def naa fa trois ans. après ma jëlee Lusitana ñi abale woon ma Ñambur. bi ñuy nekk Ligue 2. après année boobu la ñuy yéeg Ligue sax. après si laa gaañu. toog na presque deux ans footballuma après si la ma commencé football laa dem génération foot en 2017. Mm-hmm. mu mel lu jëm ci wàllum blessure nekk na loola sonal. non torop sax toroon mm-hmm. amoon naa ay blessures yu métti lu mel ne ligament croisé am naa ko deux fois. Mm-hmm. am naa ko deux fois. mais sant yàlla rek xam nga bi moom nit ak tolof tolof ñoo ànd quoi. damay jàpp ne mbirum yàlla rek. léegi euh, jàpp nañ ne di nga demaat ci lu ne fan yi néew euh, génération foot. Mhm. Euh, am nga yaakaar ne tamit doo fa yàgg ndaxte contrat bi ñëpp a ngi koy xaar comme déjà annoncé nañ ko. te gisaguñ ko waaw amin rek amin dama naan amin rek peut-être seen la rek. Mhm. waaw dama naan amin rek yàlla baax na. yàlla mhm. bari na sutura yàlla na ko yàlla mootali bu fekkee loo am la. incha allah nga jël final bi ñëw fii ci Louga nan nga ko dundee ak ay beeg yooyu. non bi ma so loolu garaawoon na. non li ma fi fekk non dafa ma ëpp loxo. daf ma bett torop torop torop torop mhm. torop ñoo ñëw fii fekk waa Louga yëpp génn tertu ma te yëgaluñ ma dara surtout mhm. mu nekk surprise ci yow sur mu doon surprise ci man su ma ko yëgoon sax dina xaw a kii mais damay ñëw fekk gars yi tertu ma sorti Louga ba ma mhm. ñëw waa Louga gi yëpp génn mu dem ba affaire yëpp ma loxo ma ma kontaan daal mais aw ma seen fay quoi di passé message boobu mais aw ma lu dul ñoom quoi aw ma seen fay gis naa leen ma taxaw ak yëpp waaw ah. nga jóge foofu ci accueil boobu dugg ba si sa biir kër lan nga yëg. non <laughs> non boo ñëwee kër oh lu garaaw. Mm-hmm. fekk fa lu garaaw tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. kontaan bay bëgg a dee. tamit ah yàlla baax xam naa <laughs> ah lan nga fekk sa kër rek ñamal ñu ci tuuti ba nga ñëwee tamit seen waa kër ci fekk mhm. fekk fa nit ñu bari ñu toog di ma xaar mhm. samay xarit ak samay mbokk ak samay entourage ñëpp bari na daal mhm. ma tertu di ma ñëpp ma fekk leen ku ne di ree man yàlla na jëm kanam rek euh, mbégte ci euh, famille bi euh, ñëpp kontaan ban message aussi ngay lancé jeune jeunesse bi Euh, ñi nga xam ne tamit ñu yëngu ci wàllum football. non man li may lancé jeunesse surtout jeunesse Lougaoise bi lu dul ñu affaire yi moom amul secret quoi. Mhm. ñu góorgóorlu rek. Mhm. xam nga mhm. travail discipline. kase ci kanam te tamit gars yi njiit ñi nekk fii ci wàllu football ñu aider leen quoi xool nga boo xoolee footballu Louga xam nga Sénégal li nga ko ciy dégg bariwul quoi. Mhm. mel ni laaj na ñu jàppale waat leen tuuti ñu jàppale waat leen quoi parce que mhm. fii am na ay talent yu bari yu baax yu fi ne. Mhm. am na ñu ñu mel ne papi waat ñu raw sax papi. ñu fi ne. mel ni jàppale bi moo des. moo des quoi côté boobu waaw surtout loolu infrastructure moom ci football lool moom presque Sénégal gépp la. parce que loolu suñu jafe-jafe la quoi moo tax yenn compétition yi. gars yi ñuy am problème quoi. loolu mooy indi problème bi quoi parce que mm-hmm. loolu moom war nañ cee jàppale gars yi quoi mm-hmm. football local bi war na gën a mën a avancer quoi jëm kanam quoi. Mm-hmm. au delà du lan mooy sa passe lan ngay def leneen. non man defuma dara man football rek laa xam. defuma ah, dara <laughs> defuma leneen leneen dara. ah waaw. ah kon baax na mais àdduna bi du kase am na yeneen. yeneen yi yan la yan. kii rek ok waaw ñu am contenté trop euh, nga dalal ñu fii ci Louga di la mm. jaajëfal. aussi également bonne continuation. waaw merci merci waaw man tamit maa leen jaajëfal di kontaan di kontaan ci yéen yéen ñi déplacé Mhm. micro pour jël ma tamit. Mhm. loolu tamit kon kon maa ngi leen remercier daal. Mhm. Ah, ok waaw. voilà di euh, jaajëfal euh, mbokku internet Seneweb TV yéen ñi toogoon du ñu seetaan di leen fàttali ñu ngi woon fii ci Louga rek doon jël nga xam ne la mooy le meilleur gardien de but euh, ci CHAN bi di Pape Mamadou Sy ñëw fekk ko ba ci terrain bu muy football ak ay xaritam donc lii lañ leen doon jox tey rek di leen jox dig daje rendez-vous prochaine fois incha allah merci beaucoup.